su ko defee ñoo ngi leen di nuyu ñu tàmbali nag dugg ci thème bi. diagnostiqué dañuy bokk diagnostiqué li nga xam ni moo indi yàqu-yàqu jikko yi wala boog yan jikko ñooy jikko yoo xam ni ku ko am bokk nga ci ñi ñi ngi tuddee dégradation des mœurs ñi nga xam ni seen jikko yàqu na. ñu dem nag ci téere bu tudd xutbatul minbar xutbatul minbar ñaar la bu mag ak bu ndaw. imaam yi xam nañ ko boo demee ci téere boobu benn saxaabi bu tudd xusayfat ibn al yamani mooy nettali mu ni jalasa dañu toog ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salatu wasalaam danaan jàngale danaan toog di waxtaan ak saxaaba yi di leen waar di leen deloo si ci yàlla nee nañu toog ak bi di waxtaan masaw sallallahu alayhi wa sallam di leeral kanamam ndax ndax ndax leeral sa xar kanam di muuñ sarax la yonent bee ko wax waaye koo xam ne fu ñu la fekk yaa ngi mer boobu baaxul waa ji dañ ko invité añ walla reer mu ñëw ci kër gi ba mu ñëwee ndaw si nag dafa sant ñan xaw ma ñaan léegi nag ba mu ñëwee ñu teg añ bi jëkk borom kër gi génn bu góor bi ndaw si toog jabarul borom kër gi ak ki ñu invité léegi ki ñu invité ñu ne ko raxasul mu raxasul dugalal sa loxo añal mu ni déedéet ëpp leen ñam bi dafa tàng ndaw si waa ji ëpp ndaw si ëpp mu ne upp leen ko dafa tàng gaa yi ñu ëpp mu upp leen dafa gaa yi ne ko bu ñu foto ñu ko boobu ba léegi mu ne déedéet neel sa jabar na upp kanamam xar kanamam daa tàng moo tax ñemewu dugal sama loxo kon xar kanam bokk na ci li yonent bi sallallahu alayhi wax sa xar kanam day ko leeral ci sa moroomu jullit ba nit boo ko nuyoo muuñ ubbi ko sa kanam dana ñeme li mu la bëgg wax mu wax la ko waaye ñàngal sa kanam te lu yàlla xam doy na jaru ko fi yonent bi nag toog di waxtaan ak saxaaba yi déglu leen mbokk yi xam naa li ma waxoon du mën a nekk waaye damay jukki foofu ay jikko jukki Ibrahima ibnu Adham ngeen ngeen ngeen indi ñànkatang bi rek ma def ci soof bi ko defee incha allahu gars yi jëriñoo ko waaw léegi xosay fa nee na xosay fa moomu nag moom moo doon secrétaire particulier wu Seydouna Muhammad même aaya naafeq yi seen tur ba mu génnee yàlla bind seen tur jox ko Jibril mu jox ko yonent bi yonent bi dafa wax Xusayf ba mu ñëw mu ne ko dencal ma ko yow laa ci wóolu moo tax Omar ibn Khattab saa yu xëyee rek ñëw fëgg bunt bi Xusayfa xoroma ndax sama tur newu ci <laughs> ah doon naafeq dafa gaaw xamoo xamoo yonent bi nee na ñetti yëf ku ko def naa fekk nga bi nag dama yàlla jégal gis naa ko fi tey fii fii fii fii mooy ni 11h yóbbu ko 14h fii fii yonent bi ko wax ah, ku jégalu nag waaw ah, ku la waaw yonent bi nee boo nee midi. def ko midi une minute bu ñuy lim naa fekkee nañu ci boole. alxuraan ne li ma taquluuna ma la tafaloon kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la tafaloon alxuraan la de li may wax maa ngi yéen ak ñun ñëpp koy def nag. Mhm. da ngay wax ak nit midi ni noo garaawul rendez-vous sénégalais la. ah. borom bâche la tàmbalee. nee na ci borom bâche bi la tàmbalee xam naa ni da doon ndékki rek ba moytul ñang la sant yaa ngi dégg. Xosayfa moomu ñu jox ko li sii moom moo doon bras droit wu yonent bi léegi ba Xosayfa nee na moom mooy nettali dañu toog ak yonent bi di waxtaan ak moom muy reetaan ñun ñuy reetaan nee na ndax moom bu béggee rek ñun ñu bég muy bég ñun ñuy bég ndax bëri na lu yàqu ci àdduna dañu merloo ko warul mer. bëri na lu yàqu ci àdduna dañu bégal ku war a mer am na loo xam ne ku ko wax dañ la war a rey am na loo xam ne ku ko def dañ la war a bégal am na jataay yoo xam ne boo fa demee bokk na lu tax yàlla génne fa loxoom mooy dañu fa fekk as gor ñu toroxal ko fa nee na ñu toog ak yonent bi muy reetaan di waxtaan di muuñ ñuy bég di kontaan ñuy kontaan muy muuñ ñuy gis sàkkar yàlla bi leer gi di génn ida lama loolu góor gi wax nee na bu yonent bi di wax da gis sàkkar yàlla bi leer génn ci di daw moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñuy kontaan yonent bi di muuñ ñun ñuy muuñ ba mu yàgg rek yonent bi changé caractère am nag mer ci saa si nee na ci saa si yonent bi mer mer bu garaaw boo xam ni dem na ba ñoom ñoom seen bopp dañu am problème nee na problème bi ñu am moo mais nee na ñu gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam non seulement mer na mais bët yaa ngi commencé taa nee na ñu commencé jaaxle nag Xudayfa nee na ma ñëw xëcc sama om yi ñëw ba ci oomum sës ko sukk ci kanamam yonent bi commencé jooy nee na di jooy rangoñ yi di tuuru Xudayfa nee na sallallahu alayhi wa sallam ma ngay jooy nee na muy jooy ba mujj gi saxaaba yépp di jooy ndax moom bu jooyee ñëpp war a jooy ndax wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil alamin yàlla ko yónni ngir mu war a nekk bashiran wa nadiran kon moom su bégul kenn warul bég nee na muy jooy ñun ñuy jooy muy jooy ñun ñu ngi jooy sallallahu alayhi wa sallam a ngay jooy ñun ñi ngi jooy yonent baa ngay jooy ba yëkkat ñun ñuy jooy nee na nga dégg dënn ba di yëkkat moom sallallahu alayhi wa sallam nee na ñun ñëpp ñu am problème ba mu yàgg nee na mu commencé fomp kanam gi nag moom yonent bi fomp kanam gi moom yonent bi commencé leeralaat kanam gi commencé muuñ nee na ma ñëw ba ci moom ma ne ko yaa xayral anami yow mi gën ci li yàlla bind maa yóbbu kii ka looy jooy yonent bi ne ko yàllaa ma woon sama xeet fukki jikko ak juróom-ñeent yu ñu yor yàlla fi ma toog moo ma wax ne ma fukki jikko yo ak juróom-ñeent yooyu ñu yor moo tax da leen di jël ñoom ñëpp dugal biir safara jikko yooyu jar na wax wala jarul wax jikko yooyu nag fu ma dem dama naan jikko Sénégal la jamono ji ñu toll ci yonent bi ne ko yaati ala nnaasi zamanuhum yusqadu fihi l ba ca jiitu nee na addunaa ngi ñëw jamono ngi ñëw yàqu-yàqu jamono dana dem ba sama xeet dañuy yàqu yàqu yàqu ba jikko yi day nekk seen jikko parents yi toog di leen seetaan di leen ci encourage mooy ban wa yatrukuuna salaata dañuy yéex julli waxul dañuy bàyyi de waylun fa waylun lil musalliina yàlla nee na ñuy julli ñëpp sawar lañ jëm ñu ne ko ñaan mu ne ñuy julli te di ko yéex a def war a julli cinq heures julli cinq heures vingt mbaa cinq heures te amoo benn ngànt yàlla nee na ñooñee safara lañu jëm moo tax waa ji ma doon wax ma ku dul julli du julli ma ne ko kooku moom man xaw ma lu yàlla wax ci boobu ndax yàlla dul turam yàlla kii julli te yéex ko la wax safara la jëm ku julliwul yàlla amul ak yow affaire yonent bi nee na man lam yusalli faxat kafar ku bàyyi julli yéeféer mu ne wa yatrukuna salaat mu ni ñooy ñi nga xam ni dañuy julli di seetaan série waaw sama kër la njëkkee barki dem ba ma saw xam nga ñun dañuy dog rek ñu baal ma damay man damay man du ma fi nekk di def yu fi ñangeen yooyu man tàndarma lay lekk galax ni ku julli reer pare naa ci du ma lekkat ñu def noonu ñuy julli nag nga dégg kenn ki sama waa kër daal e Adja day commencé taalal télé bi en attendant buy commencé ñu yëg ko ma ne ko léegi yow da ngay julli di seetaan Adja di déglu ndox commencé na loolu moo am fépp Idrissa Diop moo ñu nettali nee na ci jamonoy mondial bi waa ji day julli ni allahu akbar Sénégal moo doon football gars yi ni bii mu ni ku dugal kooku est-ce mi ngi julli benn waaye dafa ñëw ci sallallahu alayhi wa sallam di julli xoola allahu akbar di defar montre bi defar chemise bi yonent bi ne ko julli woo xoola defaru julli di defaru mu ne ko julli woo léegi yow mi julli seetaan wala ngay déglu téléphone bii eh, eh, eh, te yaa ngi julli un un yaa ngi julli di julli allahu akbar ba pare sa xel nekkul ci yow loolu la yonent bi di wax ma jox la benn plat ma jox la benn benn exemple Seyd El Hadji Malick dafa ne benn góor gu sant Mbàkke ñëw ni day nattu Seyd El Hadji mu ni moom gëm na alaj El Hadj yàlla la Cheikh Thioro Mbacké la tudd mu ni man El Hadj Malick yàlla man wér na ma ndax dama ko nattu nitu yàlla balaa nga ànd ak moom danga koy nattu moom moo waxoon taqaddama ruknu diini ba El Hadj Malick génne àdduna mu ñëw Tiwaawan Serigne Hadj na ne bu mosaan am gan day puus jox la nga jiite góor gi ñëw El Hadj Malick puus jox ko mu jiite. tisbaar de tisbaar déglu leen mbokk yi tisbaar góor gi ne allahu akbar rek bismillahi rahmani rahim ca kaw di tere ca kaw tàkkusaan mu def noonu mu def fa ñetti fan di def noonu ndekete nit ñee ngi koy wokkante waaye yow gan gi moom day jiite di julli ci kaw mu julli ba pare ñetteelu fan bi mu tàggatoo ak Seydi Hadj Malick bëgg a ñibbi ne Alaaji Malick waaye yow sama julli ji waxoo ci ba léegi de Alaaji lu may wax mu ne ko yow yaa ma jiital tisbaar mu jàng ci kaw tàkkusaan rajmaal ni ko billaahi ba ma ne allahu akbar laa fi nekkatul wa ida atayta ila salaati fa fari qalbaka min ad-dunya borom lax daree ko wax nee na boo nee allahu akbar jëlal sa jëmm sa jëmm yow ba fi waaye ruux gën a dem est-ce que xam nga julli fu ñu la mayee nga dagg ko woy jur jërëjëf Abdallah nga ne allahu akbar naa fi la laa wax de allahu akbar sa yaay ne la eh, masaw ne ko yaay damay doon julli de mu ne waaw continuer bu la nee nag eh, dama la soxla daggal daggal dem wuyu ko waaw bu ko tayee bu ko tayul bu fekkee dafa la soxla daggal bu dee sa papa nag dañ ne la bu ko dagg yaay fort xoolal bu dee sa baay dañ ne la julli ba pare ne ko papa baal ma dama doon julli. julli kenn du ko fooyee bu baaxul dara du baax nit buñ ko nee yomb ci bàmmeel 40 pas la ñuy def xam nga 40 pas eggul ci oto bee matul seeg oto bi 40 pas buñ ko tegee rek malaaka bi ñëw na la eh. sa borom kamodoon sa yonent ban téere nga doon àtteewoo eh boo daan julli foo jublu lu muy tekki mooy est-ce que daan nga julli ba pare foo daan jublu. yaa ngi dégg julli boobu. wa yatrukuna salaata dañuy bàyyi julli. julli dañ koy fooye da ngay gis jigéen boo xam ni ñu baal ma day am lu koy gaar ba du julli loolu la leen yàlla nattoo mooy seen cër yàlla leen ko nattoo bu leen gaaree ba nga xam ne du ngeen julli affaire bi arrêté tey ñu ne damay bàyyi ba suba li may wax am na wala amul yonent bi nee na Fatima la waxal ne ko Fatima góor góorlul sa wàllu jaamu yàlla moo tax téere yi nee nañ sallallahu alayhi wa sallam bu ma saan ñëw fekk Fatima di nelaw da koy tuuma ne ko jugal julli sala inna salata wa ma wuluka la axiru ma awsa bihi mustafa fi xaalati alamin inna salata wa ma nee na inna salaata naka julli wa mamluukan ak moomeel yi moomeel yi ñu ñu déglu te yàlla tax moomeel yi moo di mindaan yi ci kër gi xar yi ngeen di takk ci buntu kër gi mbaam yi fas yi yonent bi ba mu tolloo ci sukuraat mu mu metti lool mu sonn lool kon mu ni wayatrukuna salaata premier point yàqu-yàqu jikko dégradation des mœurs bu ñu ko bëggee régler li ñu war a njëkk régler mooy nañu fexe xale yi di julli nañu fexe mag ñi di julli xale nag boo bëggee mu julli yow mag mi yaay jiite julli waaye bëri na kër yoo xam ni kilifa ga kilifa ga moo dul julli ndax Seydi Hadji Malick ci Kifaayatu Raaxibiin nee na danañu dem jamono mu yàqu yàqu goo xam ni dana dem ba jàkk yi jullee sa kër day gën a nekk farata nga julli jee jàkka ja benn ñaareel bi moo di aar sa njaboot jullee sa kër mooy gën a nekk farata nga dem jàkka ja parce que gis nga bëri na koo xam ni waqifuhum innahum mas'ulun yawmal xiyaamati yàlla dalay àtte nga daan yaa daan tijji jàkk ji yaay julli yaay wasifa yaay jàng xasida yaay def lépp say say doom daawuñ julli daawuñu woor yàlla dugal safara kon kon julli wa yatrukuna salaata julli nag dafa am benn point benn benn acte boo xam ni wala boog benn acte boo xam ni imam daf ko def léegi ci julli bi rendre ci compte sax parce que loolu mooy sharia te li ma ci gën a neex mooy ci julleem xam nga ni ci madhabu maliki la bokk ci madhabu imaamu malik ñeenti madhab la ñeenti école madhabu imaamu malik booy julli taslim nga bala li lay génnee ci julli ba baat bi asalaamu aleykum jeex waaye da gis ku nekk Sénégal ni ci madhabu Malik la bokk wala mu ni imaam la xamul sax ci madhabu Malik ni da nga war a wax asalaamaaleykum ñoom dañ naan asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah soxlawuñu loolu ci madhabu alekum la jeex imaam yàlla na yàlla fay la ñun dañoo bëgg ku ñu mës moo ñu doy malik nag dafa am lu tax muy doy ñu du hasard Malick nee na ma bittu tal fi lmadina ila raaytu rasulallahi fiha Malick nee na musuma fanaan madina lu dul mag yoon ci yàlla Muhammad ñoo di waxtaan xam nga ne am na cër di wax nee na madina mosu fasol dal la ngir xormaal yonent bi jazakallahu xayran yal na yàlla fay la yaa ngi dégg kon julli nañ ko fonk julli boobu nag moom la chrétien yor moom la ñeneen yor parce que ku nekk xeeti julleem te gis nga dialogue islamo-chrétien gi ñuy wax wax naa ko ki dem ba hôtel la njàmbur ak ñoom Masaw yàgg na fi am gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ñu koy yónnee ñu commencé di ko xatal biir mag xam nga lu mu def dafa def dafa woo saxaaba yi woo ñoom Jaafar ibn Abi Talib ne leen hé dem leen Éthiopie am na fa benn buur bu nekk chrétien bu tudd Najashi bu ngeen demee man xam naa ni buur bu maandu la buur bu baax la buur buy dimbale la donte bokkuñu diine bu ngeen demee dina leen recevoir góor ga mi ngi lay nettali sax ban yoon lañu jël nee na jëluñu avion jëluñu bato géej gi lañ jël ñu dem egg Najashi ci Najashi Éthiopie Éthiopie buur ba recevoir leen waa màkk yónnee délégation ngir ñu dem jëli ji leen délégation bi ba mu ñëwee buur bi dafa déglu waa délégation màkk ñu ni ko ñii dañu wax ni yow bii buur bi yent yàlla Isa mi ngay gëm du dara Muhammad mooy dara xas nañu suñu ay maam yi wa baada sabbin wa tadlilin wa tatfiatin ak faw lahoo nee na ba loolu amee buur bi buur bi nekk ku maandu ndax ndax buur du nekk benn nopp yéena ko wax ñu waaw mu ne taxaw leen yéen ñii li ñu wax dëgg la jaafar ibn abi talib ne ko déedéet loolu amul mu ni mu ni waaw yéen seen diine lu mu wax ci ñun suñu diine christianisme jaafar jàngal ko suratul mariam jàngal ko xisa mariam buur bi da doon jooy ba yëkkat ni yéen seen diggante ak ñun chrétien ak lislaam benn trait rek la du dara e waxuma yéen waa mag waaye picc muy naaw te naawoo jàmm sax boo fi naree ñëw ma rotal la ñii kenn du leen laal kon jarul islamo-chrétien yàgg naa waaye beneen bi mooy waa jooju ñuy wax te nga xam ni mooy naw lay Seydi El Hadji boroom xam-xam bu sori bu garaaw boobu dafa dugg ci biir prêtre yi fexe ba fexe ba jaxasoog ñoom ba ñu gëm lislaam waaye beneen bi ma lay waxaat moo di gis nga Sénégal Sénégal fii ak ñi ngi dund li ngeen def fii tey jàmm dina fa am xam nga mooy lan laayeen bi bàyyi ko loolu la gëm bul ŋàññi li mu gëm Serigne Cheikh Tidiane si dafa dem ci yow arab yi ñu koy laaj seen dëkk lu fa am mu ne ay turuux tariqa quoi ñu ne ko yan tariqa mu ne am na allahi yuun allahi yuun allahu arab yi di reetaan laahi yoon mu ne waaw ñoom dañoo bëgg yàlla ba jël seen sant jox ko bu yàlla arab yi ni pat mu ne am na a qadriya a tijaniya al muridiya tariqa yi 360 la am na Chahrawan am na Naqshbandi am na Nasri am na yi am bëri na bëri na bëri na bëri na waaye Sénégal bëriwul tariqa mais coow lay bëri coow li te am xam ñu indi coow li mooy ñu tuddee seen bopp tijaan te doonuñu ko tuddee seen bopp murit te doonuñu ko tuddee ko laayeen te doonuñu ko mais vrai tijaan vrai murit vrai xaadir coow warul am sëñ Tuubaa lu mu wax fa kulli wirdin yuridul murida li xadratallaahi walan yaida ila aljeylani aw imtama li ahmada aw li siwahuma min al id kullu id kulluhum xataan ala sawaabi ma nga ca masalikul wird boo fi dana yóbbu taalibe bi wala yaay daa te du ko mooy sawa un intama yaa xam ba nga jàpp ilal jeylaani ci Abdou Khadre Jeylaani aw intama yaa xam ba nga jàpp ila ilal Abdou Khadre euh, Tijaani Cheikh Ma Tijaani la id yëgal ni kulluhum boole seen xataan ci lu dul dog ala sawa bi ña nga jëm kër yàlla xoola mu ni sawa un intama sawa un intama mbay sawa un intama dafa mel nga bind un enfant ni un enfant nga ni sawa un intama loolay liaison tanwil bu ci hamza toppee hamza wasum lay doon moo tax sawa unin tama ngay wax ci sëñ Tuubaa te maa yàgg ci sëñ Tuubaa boobu yaa ngi dégg kon nga dégg ni lii feeg mi ngi am man yi dialogue islamo-chrétien waxuma islamo-chrétien mais dialogue dialogue bi liñ ko war a njëkki ci suñu kër et puis même bu dul dara sax sa dëkkandoo sa dëkkandoo la mm-hmm. ki ngay nekkal ci école bi sa dëkkandoo la ki nga dekkal ci oto bi sa dëkkandoo la ki nga nekkal ci dëkk bi ki nga nekkal ci quartier bi waaw bu fekkee moom même bu dul chrétien du jullit juif la sax jox ko li mu moom kon wayatul ko na salaata ma dellu ci li ma ne woon julli nañu ko fonk Fatima yonent bi da ko woo bu mu ñëw mu ne ko di ngeen dund cinquante ans yéen jigéen ñi bu ngeen taxawee ci kanamu yàlla muy regle seen julli du mat vingt ans Fatima ne ko loolu nu mu mën nekkee mu ne ko da di am ngant ngant gi da ci abusé ba mu ëpp su seen ngant jeexee rek sangu leen jàpp julli fi toll nii ngeen baal ma jigéen boo xam ne dafa gisoon baax fi mu toll nii mu arrêté ban heure a jot ah? day sangu jàpp julli tisbaar léegi nii su toogee ba 5 mu doo ko sangu jàpp julli am na bàkkaar bàyyi na julli tisbaar am na ñoo xam ne dañ koy bàyyi ba suba nag waaw bu ko jëkkëram soxla ci saa si dafa war a ànd ak moom sew sew la dëgg la da nga kon kon nga dégg ni jigéen dafa war a gis nga li yonent bi sallallahu alayhi waxoon nee na addunya kulluha mataaun wa xayru mataa'iha al mar'atu saalih adduna lépp xéewal la waaye xéewal bi gën a wér mooy nga am jigéen ju sell jigéen ju sell nag du jigéen ju bari pexe du jigéen ju bëri caprice déedéet jigéen ju sell mooy jigéen ji xam li ko war mu di ko def waaye tukuna salaata julli kenn du ko fooyee del julli di julli lay say doom da ko def ci waxtu wi da ko sellal del jàpp nay ànd ak jàpp laa salaata liman la tahara a julli mënta baax te laab amul laab dañu koy jàng da ngay jàng ndox bi ndox bi baax mën a laab mën a laabal maa ul mutlaq mooy ndox boo xam ni xet ga changé wul ndox boo xam ni couleur ba changé wul ndox boo xam ni caf ga ga changé wul yooyu yëpp boo ko jàngee nga jàpp ñëw taxaw julli même boo jàngul alxuraan allahu akbar yow yàlla teewlul sa xol yow yàlla yàlla dégg na làkk yëpp te a julli may nañ la julli nga sujjóot di ñaanal masaw yal na ko yàlla yóbbu màkk ma ci julli ji nga koy wax ci olof diw yal na ko yàlla may wér diw yal na gudd fan diw yal na nangam yàlla ni foofu loo fa ñaan ma defal la ko may nañ la ko te doo am bàkkaar doo sujjóot doo def dara kon nga dégg na julli kenn bu ko fooyee mu ni inna salaata wa mamlukan laaxiruma moom la yonent bi daan digle wayatrukuna salaata dañuy bàyyi julli mooy premier point ñaareel bi moo di ba ca jiitu salaa sallam mooy wax de xusayfa nee na yonent bi mooy wax wayatrukuna salaata wa yamnauna zakata da ngay gis ñu am alal lool ni duñu génnee azaka wax naa ni Sénégal nag xamuñu ko tabe xamaluñu xam dox bu yor xaalis masow tab dëgg dëgg dëgg xam nga mooy kat mooy ku génnee àqu yàlla ci sa alal yàllaa wax génne leen azaka mille francs bu ne juróomi dërëm bu ngeen ko dencee at génne leen ko te azaka dafay lewal alal yow nga denc alal at loo ko azaka ñëw di may cinq cent mille mbaa un million bi yow mag gars yi am nañ mag yow amoo ci tus kama ko may am na mag te yow amoo dara yow kon wayatru wayam na woon na zakata du ñu def du ñu jëndee azaka ci seen alal wayu tafifuna al mikiyaali wal misaan nee na commerçant yi nag commerçant yi la yàlla di waxal ci bay wax de dañuy war a peese teg fii xeer xeer wala ñu jiital dara ci balance bi waylun likul waylun lil mutaffifina loolu lay wax fii wa yutaffifina al mikyal wal mizan wala nga war a jaay meew yokk ci farine borom boutique yi dañ koy def war a jaay dëwlin yokk ci leneen war a jaay tiir yokk ci leneen war a jaay lem rax kook suukar war a jaay tàndarma dem def ci leneen yéen ci bay waxte wa yutaffifina al mikyal wal mizan mu ni wa yajuru sultaan xoola bu ñu tolloo ci jamono jooju maa ngi dem de bu ñu tolloo ci jamono jooju buur yi ñooy gën a dëng ñi ñu jiite egguñu fa am cré yi lu tax mu taxaw xam nga ne yow mi duñ la woo cré yi te xam nga lu ci gën a doy mooy buur yi buur yi buur yi buur yi ñu ñu tuddee buur c'est-à-dire ñiy gouverner du ñëpp parce que foo dem am na ñu baax am na ñoo xam ni dara du changer seen pas-pas ak seen jikko wax naa la léegi ci néeg bi man la xam-xam jotewul dara ak jikko nit am na ndombo tànk te jikkoom baaxul nit njàng ndombo tànk te jikkoom baax nit am ndombo tànk jikkoom baax gis am na fii ba léegi fii ci réew mi am na fi ay kilifa yoo xam ni maa ngi lay giñal ni billaahi wallaahi tallaahi seen kees bu ñu leen tegaloon cent milliards duñ ko xool ndax suur nañ depuis démb am na. am na sultaan. ñooy jiit ñooy gën a dëng ñuñ jiite waaye xakkimu bil baatili wa yi mu ne dangay gis buñ tolloo foofu gars yi dañuy dem ba taxaw yi jikko yi dana yàqu yàqu boo xam ni da ngay gis kuy giñ billaay walay talay sëriñ jiw yàlla la yaa ngi seede neen yàlla yàlla rek la billaay walay talay masaw mii asamaan si lay fanaan ni ji li ma Assane Gallo waxoon Assane Gallo <laughs> nee na sëriñ bi guddi gi jot day dem asamaan dellu siwaat waat yi bu ñu xëyee dañu ñëw toog xaar ko nekk sëriñ bi ci kaw armoire bay tëdd <laughs> Assane Gawlo nee benn bés Assane Gawlo nee benn bés rek sëriñ bi biddanti taalibe yi teel a ñëw sëriñ bay nelaw rek bërëm rek daanu <laughs> yem ci taalibe rek taalibe yi ah kii du sëriñ <laughs> nee na sëriñ bi ne Jibril yow man ngay bëmax xanaa ndar la <laughs> xam nga yàqu jikkooy dem na ba dangay gis ko sañ a giñ billahi wallahi tallaahi nangam am na te amut. wayeeru sultaan wala nga gis ko tiim nit di ko wax loo xam ne wér na ko ni moom mi koy wax ak kam koy wax du dëgg. daja mbokk yëpp dajaloo nga tiim nit naan ko yaa baax yaa nangam yaa def nangam te ay mbokkam xam ni moom baaxul. looloy dóor. waaw gars yi looloy def de dóor. waaw fay na ne looloy dóor. wa yajuru sultaan wa yuqas wa yuxakim bil baatil wal qusraani mu ni wa yashhaduuna zuura dañuy seede neen wa yashrabuuna al xamra dañuy naan sàngara ngeen baal ma boo demee ci baar yi ña fay naan ñëpp ña ci bëri ñu ci ëpp quatre-vingt-quinze pour cent Mouhamad la ñuy tudd Duudu Mamadou Amadou Nangam Cheikh la yooyu lañ tudd parce que lu tax moo di dem nañ ba ñun xamuñu ni xamuñu ni ñun suñu diine daf ñu tere ñu naan sàngara wala xam nañ ko dañu def maa tey woyesuna liwaata wax dinaa dégg nga xoola dañuy daganal góor jigéen yéen ci bay wax de <laughs> wa yuhibbuna al dañuy bëgg alal te duñu nangoo liggéey gars yi nee nañ nañ ko lijjanti dañuy dóor dañ koy lijjanti waaw xanaa lu ñuy li ñuy lijjanti dafa fekk mu lëj fan la lëjee yow yaa ko lëjal bëgg ko lijjanti alal boo ko bëggee da ngay nangoo liggéey mam borom Tuubaa radiyallaahu anhu waaye dafa ñëw ci moom ne ko moom koy sëñ bi Mbàkke ñu ak yéen baal jëna rek sëñ Tuubaa ne ko incha allah mu ne ko moom damaa bëggoon nga wax ma rek nan lay def ba am alal sëñ Tuubaa ne ko rëddal mu ne eh, damaa bëgg am alal sëñ ne ko rëddal ci wet gi boo bëggee am alal da ngay nangoo liggéey te bàyyi yàq waaye yu rëddaat ne ko dama bëgg a dugg aljana mu ne ko rëddaatal boo bëggee dugg aljana dangay def diglee borom aljana te bàyyi tereem dégg te bàyyi ay tereem ajjana yàlla ko moom waaw bëri na ku ñu yóbbu safara te billaay wallaay moo lay jiitu aljanna affaire yàllaa ko moom de kon da gis ñoo xam ni dañuy bëgg alal te nanguwuñoo liggéey mu ne nag li ci gën a doy mooy jikko yi day yàqu-yàqu goo xam ni kenn wóolootul kenn kenn wóolootul kenn dangay ngay nit sax ba pare foo sa loxo parce jàpp nga ni waaw lu yàlla xam doy na dañu dem benn programme ñu ñëw ba ñu ñëwee ah, comme ñun ci programme yi rek la ñuy nekk bu ñu jógee fi dañuy demaat beneen ñu sonn ma ñëw ba ñu ñëwee ñu am ñu ñu woo ñu ne pour ñu toppatoo ñu ñu mën a nelaw tuuti balaa programme bi commencé ñu tëdd nelaw yi yow gis suñu dàll yi ñun ñëpp ñu yóbbu ko <laughs> léegi nag <laughs> bu ñu yóbboo dàll yi xam nga sàmm saay-saay la. Sam daal dina ma Ayuba sa dal li ñu yóbbu ma ne ko amul ay diw damañ ko yóbboo ca la dee. léegi man ñaari problème am sama dal yem na. léegi ñu ngi may tëkkuñ damay dee. mënutuma nelaw. ba loolu amee ndekete xoola dal yi demul fenn dañ ko dajale dencal ñu ko. benn maire ndeysaan moo doon bale jël dàll yëpp denc ko léegi nag maire da ko denc ba pare dem marché nag. ñu jaaxle ñu ñoom ñu toog ku nekk ku nekk toog naan xaaral ma yeesal njàpp jàng nangam ki naan sëy fii ki naan nangam ki dem na ba wóolootoo kenn. nit day ñëw sa kër sax ñaan la ndox ngay méfié wu jox ko kaas pour taxaw fële. nga yor soo oto nit arrêté la pour nga dimbali ko mën nga ko dimbali am nga yéene bi sax mais wóolu woo ko. parce que mës naa dugg benn taxi jóge aéroport bii. ma ñëw génn rek benn femme arrêté ma ma bi taxoon ñu yóbbaale ma ay ba nga yóbbaale ko ma ne ko en ah, tax mënu ma ñii nii la ñuy def day dugg rek yuuxu ni da ko doon siif ma ne ko ah bu dee loolu de nag moom dem na ba loolu moom kon dem na ba fi mu toll nii kenn óolootul kenn óolu koy def da ngay óolu nit ci sa njaboot mu def la ko nga óolu nit ci sa alal mu def la ko nga óolu nit ci sa jabar mu def la ko nga óolu ba dénk ko sa alal mu def lu ko neex kon mu ne nag wastaqiruuna bi nasabil abaai wal ummahat yonent bi mooy jàngale de nee na yàqu-yàqu jamono dina dem ba nit ñi dañuy abuser ni diwuma jur diwuma jur da ngay dajeeg nit ñu la xamoo kii doomu diw la doomu diw dafa tax nga doon diw ana noox doomam moom ba mu ne yàlla in nib nii in nib nii la wax sama doom ji min ahli yàlla ne ko eh laysa min ahlika bokk ci de sa doom la yaa ko jur ci gañoo waaye bokk ci de safara la jëm de te doomam la de moo tax borom xam-xam bi ni eh, waladu sulbi urisul maal wa waladu sirri urisul xaal sa doomu geño boo faatoo mooy jël oto yi mooy jël kër gi mooy jël lépp luy alal moo ko moom waaye sax doomu pas-pas mooy jël secret yi doomu pas-pas mën na nekk sax ku santul sa sant da gis nitu yàlla ma jox la exemple maam Cheikh Umar Fuuti yi ba mu naan fii ma toll Fuuta ba xor waccaan wacca wacca wacca wacca ngor doj wacca ngor ba mu koy wax xale bii moo fay eggale tariqa bi boobu moom jurul Seydi Hadj Malick loolu mooy doomu pas-pas kon nit bul pukkarewoo sa maam sa maamay diw defal li mu def wala nga teg sa tànk fa mu ko teg mm-hmm. waaye yow diwee sama maam foo dajeeg nit ñi diwee sama maam moom daal moo demoon ci xare ba ñu ñu moo moo gañ a gaa yi te yow yow foo demee ci xare yow dañ lay indi sa dal <laughs> noonu yaa ngi dégg mu ne nag yonent bi nee na sallallahu alayhi wasallam ngeen baal ma benn bu ci nekk mën nañu ko taal waaye temps bi la yonent bi nee na dana dem ba yàqu ba nga xam ni da dugg ci jàkk yi ñuy xuloo ci jàkk yi di xeex loolu man maa man maa ko tudd nettali naa leen ko ci jàkk ji laa dugg toog julli ñaar rakka toog benn waaye ñëw wokk mu ne suñ bi na nga ma ne ko waa mun fii benn pas moo fi toog de pas diw bu la fekkee du baax de ci biir jàkk ji place pas diw la te wa fala tad'u ma'a llaahi ahadan am na ma am na yéen ci bay jàngale de loolu la wax de wa ta'lumat mun nag wa taqilu fiha raaki wa saajidu da ngay gis kuy sujjóot dire ko te day def gymnastique julliwul la ñuy def di ah loolu xam nga mooy lan musculation gars yi sawar nañ dem musculation sawar nañ dem gymnastique surtout jigéen ñi damay dem gym gym dañuy wut professeur di ko fay di dem defi sport di defi ji lépp bàyyi fi julli yàlla bi yonent bay wax de man waxuma mu ni nag bu ñu fa yeggee bu ñu yeggee foofu sallallahu alayhi wa sallam nee na yàqu-yàqu jamono jooju dana yegg ba ci xale yi xale yi xale yi wala yuwaqira kabirahum sagirahum wala yarxam kabirahum sagirahum wala yokki la saxiirahum kabirahum mu ni da ngay gis xale yi dootuñu naw mag ñi parce que nit pour nga mën mu mën a nekk sa idole danga koy da koy naw da nga koy da koy fonk danga koy bëgg danga koy sopp danga koy respecté mais xale yi respecté tuñu benn mag parce que nag mag ñee wàcc seen ànd yaa ngi de yàq googu dem na ba da ngay gis mag xam nga ba àdduna tukki nag nit il faut mu am idole ba àdduna tukki nit il faut nga am idole xam nga xaadim mi taxaw fii jàng fi alxuraan bu waxee bu waxul boo ko xoolee da ngay xam ni gëmul ku du sëñ Tuubaa non seulement jàng na ko mais yar gi yar gi yar gi moo lay wan ni kii sëñ Tuubaa la jël idole maam jaara ñëw jàng kon maam jaara bu sooy roy waayam ainsi de suite ainsi de suite kon nit ba àddunay tukki il faut mu am idole idole idole boobu nag la yàlla xam moom lañ tuddee najm ci arab najm vedette moo tax yàlla indi leen vedette bu dul soppeeku du xew yi muy yonent bi bu la de mu ni moom yonent bi sallallahu yàlla indi ko ni dama ko jaarale ci ay géej defar jikkoom ba mu baax du wax lu dul dëgg du seede neen du jëw du fen du nangam du nangam du nangam léegi nag wa in tutiu tahtadu ku ko roy jub tax mu ni indil naa leen vedette boo xam ni il faut ngeen roy ko léegi nag bu mu ko indee ba li mu njëkk def ci moom wa bashashatun yaa ko wax yonent boo ko nee jàkk da koy bëgg parce que jëmm ji taar bi leer bi ni ko yàlla bindee par force da koy sopp da ko naw léegi nag boo ko bëggee ba pare ndax nit balaa nga koy roy da nga koy sopp ro sopp gi mooy jur nga roy ko roy ngay jur nga topp ko topp ngay jur nga defaru léegi nag boo ko gisee ba sopp ko su ngeen jaxasoo yi da gis ci moom jikko yoo xam ne da nga naan ah kii maa ko respecté waaye xoolal kii ni mu jubee kii ni mu baaxee waa ji dafa ñëw ci moom ne ko man de benn jikko laa am mu ne ko lan mu ko damay naan sàngara yonent bi ne ko boobu garaawul mu ko damay njaaloo mu ne ko garaawul mu ne ko damay sàcc garaawul damay fen garawul damay jëw garaawul waaye damay fen yonent bi ne ko fen nag moom ngay bàyyi boo bàyyee fen nag maa yoo ñëwoon a ànd waa ji ko loolu garaawul fen rek pour moom lu ndaw la mu dem génne dem ci baar bi jënd sàngara teg dem bay naan daal ah su ma ko naanee dajeeg Muhammad nag mu ne ma mun ma tey naanoo sàngara lu ma koy wax dama naan ko déedéet di te boobaa damay fet bàyyi naa sàngara nit romb ko mu bëgg jëw ni ah su ma dajee ak Muhammad de su ma ko waxee bu ma laajee dama naan ko déedéet te fekk ko fen fen naa noonu la def ba bàyyi ñaaw téef yépp kon dafa fekk yonent bi dëggu mu ànd ak moom ci dëgg giir naw ko ba tax mu yóbbu ko mu bàyyi lépp moom moom sallallahu alayhi wa sallam kon nit da koy naw danga koy da nga koy fonk da nga koy respecté il faut nga respecté nit pour nga mën ko roy mais boo gisee nit mu nekk koo xam ni li muy def danga koy xeeb doo ko mën a roy mu ni tax na mu ni xale yi du ñu naw mag ñi mu teg ci lu garaaw nag mu ni du ñu naw mag ñi waaye mag ñi du ñu yërëm xale yi ñàkk naw mag ñi dem na ba ci masaw dangay dugg ci bus tata xale jël kaskam kaskam tak xala tëg paa bi taxaw ba ndigam di metti façon kii bu ne paa bi dana ko def dana ñëw taxaw ci weñ bi wéeru ci wetam dana ñëw wala meer bi dana ñëw wéeru ci wetam moom xale bi de dana ñëw puus dana def xale bi takk kaskam rek def ko exprès nag ak ko xam lu mu war a def ñun mos nañ dugg benn benn bus loolu xaw na yàgg tuuti bu ñu duggee rek xale yaa ngi toog benn femme dugg yor xale femme bi ki mu yor du liir de xale bi mën a dox la mi ngi téye ci loxoom tubaab bi jóg tubaab bu góor moo jóg dara ne ko madame s'il vous plaît asseyez-vous mu toog femme bi ne ko merci ah yow de yaa ma gënal xale yi ndekete tubaab bi dégg na wolof tubaab bi ko déedéet lu ma war laa def rek une femme ma ne booy yi xanaa déggu leen li mu wax vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit xale li ko war moo di na xam ni xale la dafa soxloo barke na xam ne xale la dafa bëgg mucc na xam ne xale la dafa bëgg defaru na xam ne xale la dafa bëgg réussir yooyu yëpp nag boo ko bëggee mu ngi ci loxo nii ñi tey si tey centre bi xale yi rek bu ñu fi newoon du ñu xam dara mag ña leen di jàngal bi am déet ñoo jël xam-xam bi def ko ci ñoom transféré ko ci ñoom moo tax xale bu ci xamat yi mag mi du sawar sax jox la xam-xam déggoo kii mu seede léegi ci xaadim xale bu yaru la mooy njëkk te mooy mujj kooku sawar na pour jàngal ko sawar na sax pour jox ko loo xam ni da ko dencaloon doomam am déet moo tax pour nga mën a jëriñu yow xale il faut nga naw mag naw ko respecté ko jox ko lu mu moom mag moo dajal rek boo ko nuyu jàppal ni sa papa ngay nuyu bu dee jigéen jàppal ni sa yaay ngay nuyu mais bu fekkee yow koo nuyu ah قد مات والده xanaa bu ma ko firee nga bàyyi ma nee na lay sal yatiimu nde njëriñ nekkul ci ci njëriñ. xanaa li baax na. baax waaye dafa gàtt dafa gàtt laysa yatimu alladi xat maata waalidu nee na na ngeen déglu si ali ran mooy wax rakku yonent bi la di doomu bàyyi yonent bi di goro yonent bi mooy wax ngeen déglu laysa yatimu alladi xat maata waalidu nee na na ngeen déglu mu wax leen ni neena ku ndeyam ak baayam dee ba ñëpp nan kooku njërim la nee na kookee nga xam ne ndeyam ak baayam dee na ba naan njëriñ la juum nañu kooku du njëriñ ñu ni ko kuy njëriñ mu ne mooy ku amul xam-xam ba bare amul tekkin nee na na ngeen déglu Seydi Hadji Malick mooy wax nag bii Alaaji Malick nee na yéen nit ñi seen yitte yéen a ngiy puukare woo a jur ak am naa alal man Alaaji Maalik nag lu may pukkare woo mooy xam-xam ak teggin barakallah kon ngeen dégg ni yàqu-yàqu jamono dem na ba yegg foofu yàqu-yàqu jamono boobu nag nga xam ni sallallahu alayhi wa sallam moom mooy mooy ki dégg jamono pour wan la déggu jamono yonent bi waxuñu ni tuflit day joxe tuberculose ah 632 la yonent bi wax ni al busaaqu fi tariqi xaatiatun wa kafaratuha dafnuha 632 nee na tuf li ci mbedd manque de civilisation la ak civisme xoola yonent bi mu ni manque de civilisation la manque de civisme la ñu ne ko lu tax mu ni ndax ngelaw li mën na ko yóbbu mu takkal keneen wala mu lor keneen jamono yooyu mu ni liy tax ñu xaw la baal bàkkaar bi mooy nga kafaratuha dafnuha nga gas suul ko moo tax yéen moo tax dund na ba faatu moom du xaaxtandiku du tufli moom sallallahu alayhi wa yaa ngi dégg léegi nag moom yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne Xudayfa wax na ni jikku yi ku mu ne ci yow doo dem aljanna safara nga jëm yonent bi bu mu jaral ko muy jooy kon xam ngeen loolu garaaw na benn nitu yàlla nag laf ci fukki jikko muy Ibrahima ibnu Adham Ibrahima ibnu Adham dafa dëkk Basra dëkk bu tudd Basra waaw dëkk bu tudd Basra ma nga ca Égypte Basra la dëkk Ibrahima ibn Adham mooy nitu yàlla bi nekkoon foofu gaa ñi dajaloo ñëw ba ci moom ne ko dañu seetlu ni yéen jàngkatu alquran ngeen yàlla moo ni wa ida saalaka ibadi inni fa inni xaribun anni fa inni xaribun ujibu daawata daai ida daani فليستجيب فليستجيب فليستجيبوا lii wala yu'minu bii la'allahum yarshudun yàlla ko wax waxal sama jaam yi ne nañ ma ñaan ma may leen mu wëlbati ko waxaat ni ad'uuni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen wëlbati ko wax yonent bi ni waxal sa mbokk jullit yi ne leen maa ngi leen di jox sama nopp man yàlla loo waaye wax ma dégg ko faj ko ci saasi mais ñun seetlu nañu dañuy ñaan affaire defu Sénégal fa la dara dematul sëñ Faye na xol yi la. وطهر القلب من يقد ومن حسد ala jab wax na ko ci ila diini ila diini wa taqwa wa fi'l xuyuur may ma maa ngi ñëw firi ko mooy gën a li tëjoo <laughs> loolu sa maam ak maamu kii ko wax incha allah bu ma paree dañ koy pelloo mag yow. waaw Mame Mansour wax bii incha allah. ki nee na xol yi la xam nga. Sénégal fi mu toll nii. Masaw da ngay gis nit am problème jigéen ñi surtout. sol dàllam dem seeti ji kuy ñaan. fay ko alal ju bëri mu ñaan dara surtout. am na wala am nga gis ku bëgg tukki ñaan dara surtout. gàmmu Tiwaawan ñaata kaamel la wàcce. màggal Tiwaawan nag. ñeseen nag laayeen nag tey rek gars yi wàcce nañ kaamil te affaire yi doxul ni mu war a doxee parce que affaire yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na nee na jullit su ñaanee ci saa si yàlla da koy nangu ah! léegi nag ñun ñu ngi ñaan affaire yi dox dox nañu xool am na lu tax nañ ko diagnostiqué nitu yàlla bi nag moo ko diagnostiqué Ibrahima ibnu Adham nee na bokk na ci lu tax ñuy ñaan yàlla nanguwul fukki jikko moo ne ci ñun ci ñun ñii maa fi xulubikum ashrata ashriyaa yi nee na ba ci jiitu ba ci jiitu fa kayfa yustajabu duaakum nee na bu ngeen bu fekkee jikko yi dafa ne ci yéen naka la yàlla dina ngoo seen ñaan nee na ba ci jiitu araftumullaha fa lam tuaddu xaqahu mbokk yi yàlla amul sañ fay maa dem maa dem firoog seen dem naa dem naa dem naa dem naa jaxaw siin xam naa dem naa buur siin tuma nuyu fu nekk dem naa fa def naa fa conférence xam naa ah, seen loolu lay teg barakallah yaa ngi dégg fii ñun ñépp ku ne ci ñun am nga maam bu faatu wala yaay wala doom wala papa wala nangam kon xam nga ne am na ku ko waaye waa ji nee na ñun ñëpp xam nañu yàlla waaye kenn delloowul yàlla lim moom araftumullaha falam tuaddu xam nga ñàkk delloo yàlla lim moom mooy la dangay gis nga génn dajeeg jigéen duggaat ni non du baax tey am na ñoo xam ne ba léegi bu ñu génn dajeeg jigéen dañ naan suñu baaxul wala dara jot la nga ni diwoo xool moo tax am na ñoo xam ne ku ñu xool nga yàqule am na sax yonent bi ko jàngale waaye gëm-gëm yooyu daf lay tardeel wala sax walla dara dal la nga ni diwa ko liggéey wóor na la dara dal la nga ni diwa ko def ñaaw njort ida dannanta fala taxaqaq yonent bi ko wax nee na njort mënta ñàkk waaye bu amee bu ko dëggal mane ne masaw damaa bañ ma jàpp ko sama xel bu ma ko dëggal soo ko dëggalee rek gis ko te boo ko dëggalee am bàkkaar Masaw xam nga ni yàlla du attewu ci njort yàlla du attewu ci njort bi moo tax dem na ba ci dañ la wax sàcc sàcc xam nga sàcc dañu war war a dagg mais kañ nañu war a dagg loxoom ak ban sàcc la war a dagg loxoom du sàcc yëpp loxo di yow nga woo ma ma dugg ci kër gi sàcc fa vidéo génn amoo droit dagg sama loxo yaa ma woo <laughs> beneen bi moo di bu may sàcc dugal sama loxo ci poosu fay ma dugal di rocc xaalis cinquante mille na ci ma jël cinquante mille yi bëgg a génn moom mu jàpp sama loxo ba mu jàppee sama loxo fekk maa ngi téye cinquante mille yi mu génnee sama loxo ak cinquante mille yi fii dañuy dagg loolu mooy flagrant délit mais bu génnee sama loxo dara new amul droit dagg ba pare bu koy dagg amul droit dagg ko jamonoy tàngaay su ko daggee moom moo war a veillé ba mu wér moom war a faj affaire daf compliqué de daf de dagg-dagg du dagg de xam ni ñu koy daggee. waaw. kon ñi sàcc yi ñuy yuuxu te jotuñu def dara ngay dóor leen nag. ah ñooñu lan la si jamono. dañ leen di tooñ rek dañ leen di tooñ rek parce que xam nga am lu mën a am ci àdduna même boo sàccee. yow jàppaguloo ko flagranderie am loo droit sax yuuxu rawatina nga woo ñëpp ñu ñëw di ko toroxal te am na ñoo xam ni loolu rek lañu yàkkam ci ba gaañ doomu jàmbur léegi nag bu boobaa yow bàkkaar bi sa loos la gàllu lu ko dal sa loos la ne sàcc boo ko jàppee sàcc boo ko jàppee li la sharia wax nga war ko def boo ko defee ragal naa ni dina compliqué pour nga jàpp ni kii sama sàcc la parce que il faut nga jàpp ko yaa ngi dégg kon yàlla subhanahu wa taala nañ ko delloo lu mu moom mbokk yi yàlla amul ndey amul baay yàlla amul dend yàlla amul ku muy àndal yàlla moom képp moom rekk moom dong la wal waxidu daatan wal waxidu sifatin wal waxidu afaalan wal waxidu asmaan yàlla kenn la ci turam allah allah mbokk yi allah moo tax ku ñu ko tuddee balaa 24 heures léegi nga dee allah kenn ku ko tuddee nit xanaa nga tox ci dara abdullahi d'accord rahmatullahi d'accord mais allah mooy ismu zaatam mooy son nom propre bi nga xam ni tey si tey moom nga koy ooye mu uy la allah wal waaxidu zaatan wal waaxidu sifaatin kenn la ci ay ay sifaatam waaye wal waaxidu afaalan kenn la ci ak kawam ci ak dayoom moom yàlla nañu delloo yàlla li mu moom xale yi doon jàngatee si léegi dañu dooroon dem ba ci rabbun tabaraka fi sifatillah rabbun taxa dasa fi zatillah rabbun taxa allahu law fi asmaillahu yàlla bokk na kenn leen kenn musul dem pharmacie dégg ni yàlla day jënd ci garab wala yàlla la ñuy jaale ji mukk ci àddina ndax yàlla daf dul nit ñi nit ñi duñu moom nañu delloo yàlla li mu moom yàlla du sëriñ sëriñ du yàlla sëriñ bi sëriñ la yàlla yàlla la bokk na ci bokkaale bu yonent bi wax ni duñu ko jéggale xoolal barke alaaji Malick alaaji Malick ak yàlla am na ñuy wax loolu wóor na sëñ Babacar Sy yàlla wóor na sëñ Fallou yàlla mbokk yi Sénégal lañ ne bu soobee yàlla bu soobee alaaji Malick ak yàlla bu soobee sëñ Maam Baye Laay ak yàlla yàlla du ñoom ñoom duñu yàlla lu ñu baax baax baax jàng yàlla te moom la ñu mës a ñaan doon ñoom mus ñoo génn jaamu yàlla looloo waral seen tur des yi te ku mu neex ak ku mu naqari seen tur fii lay des bu ñu demee yowal xiyaam seen xul def sa yàlla leen ko may yàlla nit te amul doole du jóg ci ay duma bis bu nañu indi la say daal doon neuf mois ma la def la nga am tànk am loxo am bakkan bi dox maa lay wërsëgal maa lay dundal maa lay rey maa lay àtte waaw nañ te loo yàlla li moom waaye yàlla da ngay gis koo xam ni tey si tey allahu akbar war a julli nga ne allahu akbar barki Seydil Hadj Malick dafa xaraam dañ delloo yàlla li mu moom yàlla ñu sàkk te nee na kat lu ci gën a doy waar sàkk gi ma leen sàkk foofu ma de afa xasibtumu anama xalaqnaakum abasan déedéet dama leen sàkk ngir indi leen ci àdduna ngeen am mission te mission bi maa ngi koy contrôler ah. bis ngi ñëw dama leen di taaj eh sa temps ci loo ko passé temps bi temps bi ci loo ko passé sa at ci loo ko passé sa alal foo ko dépensé sa xam-xam foo ko def léegi nag yow yàlla dina laaj nga naan c'est-à-dire te kat yàlla nee na xereñ naa xereñ koo xam ni bu fekkee da neex làmmiñ neex làmmiñ ba mel ni sénégalais xam nga dañoo neex làmmiñ bu ñu dajee yow même sous région bi boo séqee ak sénégalais da nga naan bu ko déglu boo ko dégloo mu baax la de loolu la ñuy wax dañoo neex làmmiñ waaye yàlla nee na loo neex neex làmmi bis boobu damay kaste sa làmmiñ yawma naqtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yaksibun làmmiñ bi lay tëj loxo waxal loxo ne man maa def man mi ya tànk maa daan dox bakkan maa xeeñtu bët maa gis dana doy waar lool nañ delloo yàlla li mu moom lu la dal delloo ko yàlla lu la dal delloo ko yàlla yàlla lu am yàlla la neex wala wa an na bul waay kullar wala ajmau ala matlabin dunahu mustatam ñun ñëpp bu ñu dajaloo woon tey ni hee dañoo bëgg tey nekk vendredi <laughs> mënul ne lu tax yàlla soob na tey du vendredi tax ñun bu ñu dajaloo woon ni dañu bëgg lii te fekk loolu dëppoowul ak lu yàlla sant du am yàlla li mu bëgg loolu mooy am yàlla li mu décidé loolu mooy am yàlla lu mu bind loolu mooy am kenn ku ne ci ñun yàlla tuddoon na ni tey danañu bokk jataay ñun ñii yàlla tuddoon na ni danañu toog waxtaanam ndaw yàlla tuddoon na ni bu ñu fi jógee nangam nangam mooy xew yàlla tudd na ni nangam nangam ku ci nekk war na la dal waaye nañ delloo yàlla li moom